beneen loo xam ne génn na fa ci waxtaan wi mooy que ne les 19 millions yoo xam ne ils ont déjà eu leur ticket. ñu ñu dem ñooñu ñu ba d'accord nañ ci. Uh-huh. mais de là aussi à euh, rouvrir le processus. Uh-huh. pour que ñi nga xam ne tey dañu leen écarté woon ñu boole leen ci. Uh-huh. loolu aussi bëggoon naa ci am am sa xalaat naka nga ko gisee. xam nga man dama dama bëgg xam dama bëgg aussi sénégalais yi xam ne. 19 candidats yooyu moomuñu réew mi. 19 candidats yooyu. mais ñoom ñoo jàll ah. ñoom mais lu ñu mënta jàll xam nga jàll xam nga élection bu ñu ci demee. président Macky Sall dafa gagné. Mhm. mais dafa xëy woote dialogue. ñoom nañu xool li président def ñoom nekk guñu président de la république parce que xam nga ne 19 personnes mënul nekk. Euh, président de la république dama ne leen mais kenn waxul kenn waxul qualifié nañ nañ leen génne. mais ñoom it xam ne ay sénégalais lañ te ñoom ñëpp mënuñu nekk président de la république kenn nit mooy nekk président de la république. kon bu ñu wootee dialogue nañu am maturité ak. jëllale ak jiital intérêt réew mi war a mun a dem wuy ji waxtaan ak président de la république ne lii ak lii mooy suñu position. nañ ko defee nii nii lañ ko bëggee. mais comme problème waxoo ma benn waxoo ma ñaar. 17 nga may wax. ma ne la maanaam sur les 19 mais ñaar rek ñoo wuy si président. mais que vaut ce dialogue sans ces 17 sur am na am na 41 41 wala. 47 yoo xam ne wuyu ji nañ te ci course bi lañ bokkoon. ñooñu du ñu ay sénégalais ils ont été éliminés non non non mais na ñoo xam ne kenn dugalul seen carte ba leen di éliminer loolu laa la seen seen seen kelle ISB saytu ko sax pour mun leen éliminer. Ah, loolu yéen la yéen du ñu ay sénégalais non xam nga loolu moom ma ne état xam nga état état la. ñun parti lañ yor dama ne la ñooñu ay sénégalais ay sénégalais lañ te dañoo yor ay parti valable te am na ci ñoo xam ne dañ leen kale am na fi ñoo xam ne boo doon segg yow. Mhm. xam nga ne am na ñoo xam ne jàll nañ waruñu jàll ci kaw ñële. parce que am na ñoo xam ne vraiment am na ñoo xam ne quand même. pour ñu am quarante huit mille sax problème la te quarante huit mille boo jëloon tey département Podor wala benn commune de Bokk Jallu bi. Mhm. Euh, euh, moo ëpp li candidat bi am munoo ko am. ñu ne la jàll nga seet ñoo xam ne ay doomu réew mii nañ yor parti boo xam ne au moins sax am na 500000 électeurs ñu ne la munoo jàll loolu dafa yéen a. wóor maanaam dañ wax de lu tax wax ne woon en 2019. 2019 li moo amoon. mais 2019 on a éliminé injustement ñu bëri ñaawlu ma ne 2019 ak ñeneen lu munta xew. lépp loo jaarul lu jaarul yoon dañ koy ñaawlu li ci des kay mooy ñu wax ko wala ñu bañ ko wax.